duñ mu mel ni nag mise en service bu boobee BRT ñu ngi ko fas yéene amal ci njeexitalu weeku ba décembre bi ñu dëgmal Ndeye Fatou ginnaaw bi ma la nuyoo ba noppi gis nga li nga xamante ne tey ji moom lañu wax par rapport ak essayage yu ñu jot am ci BRT bi wax nañ tam li mu mën a indi ci xëy junni la ñu wax ci ay doomu aadama naka noonu itam ci lu toll ci trois cent mille ci ay personnes la mën a yepp par euh, jour. loolu de am na solo Fatima maa ngi lay fay bu baax. li ñuy yaakaar rek mooy li ñu ci dépensé ñu fexe ba gañewaat ko ci suñuy kees. Mhm. parce que tamit investissement boo gis dafa laaj retour. Mhm. gisoon nañ terre bi ay milliards lañ ci def mais rentre d' argent yi nga xam ne terre bi mu ngi koy indi ñu bëri dañu ne la ñu doon jot lañ doon xaar ak tey jii liñ ci encaissé du benn. loolu nag dañuy bañ mu dal ñu ci BRT bi ndaxte doon na projet boo xam ne dañuy rafetlu avancé boo gis mais aussi ñi nga xamante ne ay impact lañ nañ leen bàyyi xel parce que bu fekkee ne dañ daan daan seen doole ci allées yi nga xamante ne moom la. BRT bi war a jaar tey ñu xëy yëkkati leen fa bu ñu leen bàyyee seen bopp day gën a métti mhm. perte d' emploi yi moo fi indi immigration clandestine kon yaakaar naa ne waruñ koo gën a favoriser di def ay chantier nag ubbi ay infrastructure waaye tamit ñi nga xamante ne ñooy euh, doomu aadama yi fi ñuy gagné seen vie ñu di leen fay teggi ñuy gën a nekk dans la précarité loolu tamit impact bi muy am ci ñi nga xamante ne ñooy askan wi dafay négatif te tolluwuñu foofu yaakaar naa ne bu ñu yokk di def ay infrastructure lu yokk emploi yi la war a doon waaye lu koy wàññi wala lu koy indi indil jafe-jafe loolu kenn xaaru ko kon nag nañ bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo di impact yi parce que it mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. ci jur gi la bokk professeur Mbow ginnaaw bi ma la nuyoo gis nañ ne wax na tam euh, ne faw ñu sensibiliser waat bu baax a baax ndaw yi manifestation yu mujj yi am na lu mu juróom ci wàllu euh, ay dégâts nee nañ nag bu ñu xaymaa li ñu jot a yàq toll na ci juróomi milliards suñu ay koppar mu nekk loo xamante ne doy waar na. waaw mais bëggoon na maa xam euh, effectivement euh, xayma boobu si lan lañ ko wékk mhm. euh, lan la concerné si yàqu-yàqu ba mu jur li nga xam ne moo di xayma bu ñu wax ni juróomi milliards la parce que lu ñu gis nii si BRT bi lu ñu si fësal xëy na am na ay gros yoo xam ne xëy na la ñu laal mais lu ñu gën a fësal daal mooy si arrêt yi gis nañu verre verre ay ay vitre daal yu bari yoo xam ne toj nañ ko ca mhm. waaye nag xayma bi daal euh, bëggoon ñu ñu gën ñu ko détaillé pour ñu xam effectivement euh, lan ak lan ak lan ak lan moo yóbbu ñu yegg si si li nga xam moo di juróomi milliards mhm. benn ñaareelu mbir mi moo di Euh, dëgg la naam techniquement le BRT n'est pas le train express régional euh, parce que xëy na euh, dawlin train si wàllu courant bi moo gën jafe-jafe mais annoncé nañu datu mm, fin décembre mhm. fin décembre ba ndax xam daañu si mën a yegg xam naa lu ñuy liggéey moo ëpp foofu lu des waaye itam des am na solo li des am na solo te lu bari des na est-ce que itam daañu mën a accélérer liggéey bi parce que am na ay tuyaux ay lu leneen loo xam ne soloon nañ ko loo bari ñoo xam ne ñu koy tuxal te liggéey bi si ay ay béréb Euh, mi ngi fa mi ngi fa taxaar naa si boobu ba léegi euh, donc yooyu yëpp ay questionnement la ba dans tous les cas Euh, Dakar waaye yàqamte nañu berte bi commencé daw waaye ba Petersen defe naa ni ko euh, su dugg daa mën a yegg yegg bu gaaw te xam naa ne amutaay dootuloo sonal lool waaye itam ñuy bàyyi xel euh, ñi nga xam ne moo di usagers yi parce que tali yi am na lu bari loo xam ne dagg nañ ko te oto yi xat na bu baax ñu xool itam yan plan alternatif la ñuy andi dem si wàllu circulation bi si yenn zone yi nga xam ne mhm. dafa nekk ay zone yoo xam ne dañ leen mës a ràññee bi tali bi di gën a yaatu sax zone d'embouteillage ñu xool itam euh, naka la ñuy mën a àndee saafara si béréb yooyu. am na solo bu ñuy xàll yoon wi ngir BRT bi mën faa jaax mu mel ni nag waa Kër ma saara coono la ñu nekk ndax yoon yu bon mu mel ni nag la ca dolleeku bokk na ca mënd ma ci noonee nag dem beeg bi dafay tagatémbe yàq itam la nga xamante ne moom moo di euh, woto yi noonee nag la ko euh, ñi leen di transporteur yi nga xamante ne ñoo bokkee ci aftu daal di xamle fi mu toll ni nag ñuy sàkku ñu daal di defaraat li leen di yoon wi ndax nag fi mu toll ni sonn nañu loolu ñu dem ca Kër ma Massar ànd ci ak suñu ndaw luñ fa toogal di Idrissa Diémé yile image yi di yëngu di wane lu askan bi di daj bu nekkee ci biir oto ci axe bu dox station jëmbamee di Kër ma Massar Yamaat Diop bokk ci GIE caaro yëmbal yoon yu bon dong moo ñu sonal ndox moom yàlla la waaye canal lañu war a am ndax mënoo chaque année nga génnee plan ORSEC ni damay nga ci ndox mi bu déwénee mu mel na meloon ci ay tànkam Ibra Sarr di chauffeur di ci yokk lii oto yi moom benn oto mënut see baax oto yëpp say organe yàqu kam ndox ak poids bi nga ciy lépp mu ngi ci ñu ngi ko ne meeku itam ca Sotrac niki noonu ca buun ngir bañ a wax sax département gi yëpp côté bépp nag dépp commune boo dem am na problème bu ndox ak euh, tali yu yàqu si dib si la ñaaju bii bind nañ leetar daaw azéroute dem nañ fa daaw la ñu ne woon dañ koy defar mais ba léegi kenn moo gis fu ñu defar yenn oto yi sax mbedd suuf yi la ñuy jël waaye foofu itam coono neen la dem nga ci benn terrain football fekk nga fa lu mat sept oto yoo xam ne dañu faa ngiroo ci oto yoo xam ne yow da nga ko leb war kaa fay ak li nekk ci suñu kanam ñu war a régulariser suñuy chauffeur bii la situation bu soppeekuwul boo moyul département bu Kër Massar bus aftu yi dinañ ko du mooyu Euh, mu mel ni euh, Idrissa Diémé foofu itam ba tey situation la boo xamante ne tax na ba ñenn sax ci chauffeur yi duñu mën a dawal seen euh, oto loolee nag mën a indi ay perte yu doy waar jëmale ko ci ñoom ñooñee di liggéeyee foofee ca aftu jàpp na itam boo moyul lu ëpp ci ay junni ci ay xëy dinañu ko ñàkk loole tax nag faw ñu war a defaraat yi la yoon ngir permettre ndaw yi cay liggéey mën caa gis seen bopp ñu teewlu ci Ibra Gueye kenn la ci bokk ci GIE Daaru Salaam ci ndimbalu Idrissa Diémé lii fi am tey suñu ci teelut te jóg afte dina dem en payit te afte li mu employé ci réew mi bari na direct indirect yi tôlier baa ngi ci biir électricien baa ngi ci biir chauffeur bi régulateur mais mënoo wax lim lépp lépp sax mënoo kaa lim ñun loolu mooy suñu problème lan moo tax suñu cër mënta génn ci réew mi ci ñun ci suñuy employé ci ñun ci suñu alal ci ñun ci fi ñuy suñu alal di jaar muy tali yi lan la fekkee dafa am leneen lu mu laaj mais ñu waxtaan mais ñi mu ñu booleel muy sétit ak azurut jariñu ñu dara ñu daal di àddu nag euh, ci euh, leneen loo xam ne dafa soxol lile di rek étudiant yu nekkee ci université du Mahtar Mbow bi nga xamante ne niki tey jii ci suba dañ doon amal ab sitting sitting boo xamante ne nak la ñuy nakkarlu moom moo di rek ñàkkum jël en compte lépp lu jëm ci wàllub euh, processus bi nga xamante ne dañ koo teg ngir ñu daal di boole lu toll ci juróom ci ay unité jëm ci wàllu tàggat ak gëstu mu mel ni nag UAM bu Diamniadio nga xamante ne lu mu am ci wàllub étudiant toll na ci junni ak ñaari téeméer mu mel ni itam euh, ren ji fas yéene naa dalalaat lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci ay bachelier yu bees loolee tax nag ñu daal di béjji seen naqar ni ki tey ji ñu teewlu ci kile di euh, Youssou Ndiaye membre la ci coordination des étudiants yu nekkee foofee ca université bi ci njàppandalu euh, Cheikh Ahmed Tidiane Seck ginnaaw bi nga xamante ni ñëw nañ fi ba nekk ci toll ci ñeenti promotion ba c'est-à-dire valider suñu première cycle bi étudiants yi nga xamante ni ñoo fi njëkkoon a dugg génn nañ ba am seen licence ba war a nekk ci master euh, premier année de master. mais au cours du chemin dañoo gis ne administration la fi li taxaw li li charmé woon étudiants yëpp ba ñu taamu université bi loolu lañ nekk di chambouler actuellement. Mhm. accès bi c'est par voie de concours nga jékki-jékki ni da ngay orienter mille cinq cents étudiants ci ay UFR bu ñëwee ba moment bi tey ñu xool ne. mën nañ fi orienté ay étudiants semblé projet bi loolu yaakaar naa man eh, échec sax laa ko mën a jàppee parce que dañ ne université bi système LMD lay doxee am na ñoo xamante ne ñeneen ñi bi ñu fiy dugg dañ lay waxoon ingénieur ngeen di def ingénieur da ngay def 3 ans defaat 2 ans. ñu ne la boo amee licence ba pare maanaam war ngaa mën a dem ci marché travail bi alors que sa diplôme bi nga am sax kenn xamagul ndax reconnaître nañ ko wala reconnaître guñ ko loolu ñeneen ñuy yëglu ñoo di euh, jàngalekat yi polyvalent yu nekkee ca département bu Mbour ñoom itam ni ki tey jii ci suba lañ doon di amal ab sitting la ñuy sàkku bokk na rek ñu daal di leen dugal ci biir fonction publique comme ni ko njiitu réew mi Macky Sall daal di digle mu mel ni nag toll nañ ci téeméer ci ay jàngalekat polyvalent yoo xamante ne ñu ngay sàkku ci jawriñ bi ñu dénk wàllub njàng mi ak tamit directrice bu case des tout petits ngir nag ñu daal di gestu ci seen situation bi nga xamante ne moom la ñuy euh, ji eh, si noonee sax jot nañu eh, dénk seen kàddu suñu ndaw lu ñu toogal ci Mbuur di Aliou Badara Sonko ñu tew teewlu ci Ami Faye ñoo ngeeg ñoo xam ne fii am nañu seeni diplôme professionnel ñii am ci durée vingt ans et plus ñun ñi fi nekk nii tey ñu ngi fi ak ñoo xam ne suñuy élève lañu am na defe naa ne ñi ma nekkal duñ ko démentir fu ñu toll nii sonn nañu damm nañu tàyyi nañu yàgg nañ ci terrain bi torop